asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw booy ci doon yow. waaw sama. waaye man de xam nga rek. waaw. gis ngeen li li daal bi def daf maa war. waaw ah, saa yow. waaye weer feeñ na def ah su daal dafa dagg. alhamdulilah dafa dagg. waaw lii de xëy wala ci man xëy wala ci man. dëgg la waaye xam naa da nga toog. ah waaye saa yi man moom mooy loolu quoi xam nga ñëwee ma koor bàyyi mooy loolu. koor gi nii bàyyi xam nga. man weeri fan yaa góor gi. ah góor gi. mooy waxante bàyyi mooy loo mel laa lépp loo mel. waaw walaay góor góor gi dafa mel maa moom sax ñoo kii sax bàyyi dafa mel. kon moom xanaa du moom mooy loolu. bu ñëwee sax dafa baax. booy. ah góor gi. non defal ndànk rek man amul ma gis tey jii léegi lii affaire weer ak koor bi ngeen tuddee loolu bàyyi ma booy defal ma sama saa góor gi dafa mel ni dafa mel ni weer feeñ dafa mel ni ko de góor gi dëggagul mu naqari de ah. naa ñu dëkk benn taxaw leen taxaw leen yéen yéen fii nag sama place yéen a ngi dégg ah. comme que kii gis ngeen ko wax ngeen ko li muy bañ ah. gisuma coow am sama place man bëri bii bañu ma loolu yow laa nekk ndax bëri bii mooy sama teranga te man leen ñaar ñi xam naa leen moom depuis bu ma leen xamee ba léegi nanguwu leen a woon yéen moom mosu leen a ñeme koor yéen a yëpp góor gi di ko xas daal xam naa ni yéen ñii yéen moom daal wax dëgg yàlla yàlla xam na ne léegi daal jàmm am même tuuti maa gala daal bi dégg nga yàlla waxul kenn dara si koor gi ku mën a woor woor ku mën a leen lu dul li ñuy wax impoli impoyable moo leen jot ah bien sûr waay non non dama déglu ma xam loo bëgg ngeen man du ma seen moro nekkee naan weer yi feeñ ak weer yi feeñu la weer man gisuma euh, dégguma bu leen ma dugal la ci affaire weer feeñ na wala weer yu feeñu. Ah, bàyyi leen ne tranquillement buñ déggee ne weer feeñ la kenn booy defaral ma dem weer bi daal dafa mel ne moom defaral ma dem lii ma gis nii defaral ma dem ah, parewul defaral ma dem ci weeru koor gi di voilà ah. voilà man xam naa ne moo fi ñëw doy defaral ma dem rapidement dia laay feer. te sax booy mën nga rumah bàyyi wala mën maa bàyyi. waaw maa ngi jégalu ko maa ngi jégalu bu sa waay baax na ah koor gi waaye nag yéen ñi nag. waaw am na loo xam ne jaaxal ni ah lu la. man daal heure bi seen koor gi ah heure bu koor gi ñëwee rek nit ñi dégg leen ngeen di ratatati koor gi ñëw na. koor gi ñëw na koor gi ñëw na koor gi ñëw na. koor moom daal neexul moom xam ah ah, ah. koor gi daal fanweeri. père yow dafa mel ni yow père yow daa mel ni sa yaram dafa tàngee fa nga jógee de. waaw lii nga gis ne amalu ko raw ci biir bàyyi ma rek te nga liggéey. booy defal sama daal ma dem. ah père maa ngi lay ah, wax maa ngi lay ah, père bi daal mooy loolu xam naa fi mu jógee ba daal ba daal la dagg moom xam naa moom jëlewu fa jàmm xam naa xam na wara li nga faa lu ko naqari mais père ko gën a tax moom mooy loolu de ah dara xam naa ni daal mu neex naka di ko benn dañuy woor suba. ah suba moom incha allah moom ceebu jën suba kànja maafe dama daar. yooyu noonu yu neex yooyu noonu ah. naru am waaye su ma heure bii bu ngeen ko waxee waxu leen dëgg. ah déedéet waay da ngeen di fen. ah, ah, ah kay fen déedéet waay dañuy en force. ah dinañ ko dank dinañ ko peel ak putu dinañ dagg ci ñaam bi carotte lépp dinañ ko def. ah fen ah, loolu moom waxu leen dëgg. wax ah loolu loolu loolu xoolal weer eh, bi feeñ na gisoo feeñ na Mali. waay waay man dëkkuma Mali man duma malien man sénégalais la. ah waaw séeréer duma malien. na koy bëgg weer moom dina ko war waaw jox ma sama daal ma dem waaye tamit. waaw jox ma ma dem jox ma. weer bi moom weeru ah, eh, yàlla la yàlla yàlla santaane. dama li yàlla santaane lépp nekkoo leen. Ah, def sa xel suba daal. Eh, ah en tout cas yàlla santaane sa daal la sa bàyyi ma sama place damay liggéey. voilà si waaw lu wax bi. ok dem leen liggéey. yow nag waaw léegi maa ngi lay xamal te bari. mooy lan gis nga ñii. waaw la dee fréquenté. waaw di nga bëgg mburu moo ndékkee doo parce que ñi xale yore. mburu ñu ñu ngi si yoru góor nga la mburu. yoru góor nga la yow. gën de jël per bi daa mel ni moom su ngeen wóor su ma dee. daal fii rek nga bëgg maa fay fu ñaari ah ah tamit li ma la fay baax na huit cent. waaye huit cent daa tuuti waaye. bon c'est bon. Oui mais dara hein, mais comme d'habitude comme d'habitude d'ailleurs oto bi de toute façon yow demi 16 heures laay après ma dinaa def ah dinaa def 16 heures rek. d'accord ok ok ok merci ok ok. mon frère Bakary sama xarit. bal ñu àq bal nañ la yalla yalla bari jéggal eh, waaw yalla dafa dogal nak ma ngi yow dañoo yàgg dañoo yàgg deug la bañi xalé ba tay lu mo mas di metti rek yow lay yow lay yow lay wo ba xolal mako yalla dafa dogal ni nit ñaangi naan weer feñ feeñ na ak day feñ ak du feñ te umpulé woni man dama amé dama iseer sama iseer bi dal la bëggoon nga xolal ma ndax eh, dinaa man a woor wala dama bañ a woor daal. dëgg la waaw c'est li nga wax dëgg la waaw mais koor gi moom yooyu wax dafa jarawu bi dara. ah. parce que ISRA bi bon day tax koor gi sax day tax mu wëral ko et puis da ngay gën a stable daal. non dama ni pour ma bañ a woor pour nga wax ma man ma bañ a woor. Euh, comme ni nga na naan waaw koor gi jotawul ak sa ISRA bi dara ko mais di nga mën a woor un mois bi te du am juróom o problème au contraire yow da lay wëral quoi da ngay ne sa activité et puis wàññiwul dara daal. koy woor woo maa ngi woor fanweeri fan yi. incha allah di nga woor un mois bi ci jàmm ak salaam dara du dal. yow yow yow loolu nga décidé yow pour man ma def ko. maanaam mooy weer bi incha allah di nga ko mën a woor ci kàttanu yàlla waaw waaw di nga ko woor incha allah du am benn problème. baax na baax na nuyu ma ñëpp. ok alam nasaraka man daal docteur yi dara dara ba dara boolo jeex tus xamuñu saa yow docteur yi xam nañ dara de ñoom ñi jàng seen métier ba ne man nañ ko yow mii yaa bëgg lu yomb ba tax nga ne doo wor ni ngeen mel moo ñaaw juróom-ñeenti weer benn weeru yàlla bi rek mënoo koo wor sa laafa bu gudd bi ak sañ muuraay gi ku la gis foog la kilifa dee leen bàyyi seen waaw moo ma neex moo la neex moo ma neex kay. yow mën nga maa bàyyi wala mën nga maa bàyyi ba foo bëgg ñu dem. sama kër rek nga ma wàcc ma ma ne. loolu rek laa bëgg waaw yegg. waaw loolu laa bëgg. moo demee ne sa jabar wooroo. ah ah bon. waaw. ok bala may woor ñu woor. weeru suba lañ wax la ñuy woor. naroo jum de. waaw jërëjëf. jërëjëf sa morom dina la ko wax. waaw yow yow yaa nattu jub. waaw kat dëgg. dawal takk ay kaskam ni jàkk xool buñ ko corné du gis xamul signal gauche xamul signal droite xamul xamul dara. man damaa jaam ko dara nga nga nga boo jaam ko dara di nga takk kask yow. ngeen def wuy téléphone ci kaw ci biir oto yi. waaw dama ah, ko jàng wuy téléphone ci biir yi ngeen di nekkee fi ah xamal leen ko dara du ngeen may seen moromu chauffeur du ngeen def dara. waaw fu ngeen romb lu ngeen romb yàq lu yàq yéen a ko yàq. waaw yow boo woor génn sa kër nga fekk wooroo. waaye man man man li may gérer gënu xam. gënu ma oh. xam dara yow. ah ah yow yaa xam dara. yaa xamoo dara yow yaa xamul dara ci sa métier yow. yow yaa ko ne maal yow. yow tiima yow ne maal. tiima xoolal xoolal xam nga lan laa. defal ndànk am sa xaalis nga wàcce ma fii. dama eh eh eh. la waaw man it waaw man fay man téemaa yuuxul. yuuxul ku ñëw yeey la de. Eh, eh, eh, wàcce ma final. wàcce wu ma la ku ñëw yeey la. Ah. ku ñëw yeey la wàcce wu ma la. lan nga bëgg ñu dem ci man ak yow. loo bëgg ñu dem ci. waaye dama wàcc fii laay wàcc waaye fii laay wàcc. fii la par par fii laay wàcc. fii nga fii laay wàcc fii laay wàcc. taxaw yaa rëy laa jël ma jël naa la jël ma la ngay taxaw di am. tuñaa bi nga doon. waay waay tuñaa nga ah, waay yow. tuñaa bi nga doon. waay yow man yow laa waxal waaw am delloo sama xaalis. waay am delloo delloo client bi nga doon boo demee naan sa jabar da ngaa warta wóoroo waaye maa tey ñi ngeen di def rek sa gàttaay ak sa yow mi ñoo yow mu sa kaala gu bon gii nga yor yow yaa soof waa yow ñàkk nga fayda trop nii rek ngay def amoo fula sax demal ak sa verre yu ñaaw yi waaye yow góo waa yow nii rek ngeen di def ñàkk nga fayda trop Joe. damay wax ak yow nag pour nga dégg li ma wax bu baax parce que ci mbedd mi nga taxawee dama ko waxaat secteur bépp dégg man dama lay sensibiliser buñ duggee ci weeru koor bu ngeen mënta dem pour yor téléphone bébé ti koor am lañ lay may. ay papa dara dama bëgg nga déglu wax ak yow papa rien dama lay wax. mënta muñ ba mënoo ko muñ nga dem fekki ko. mu biisu la jàpp ne da ngay wori yow sa fanweeri fan jeex na tàkk yow da ngay wori te fii ñëpp fanweeri fan la je t'aime da ngay kaafa di nga waat juróomi weer waaw waaw envoyé ma sa photo c'est envie de toi kooku bu yeboon na nga xam ni yow diine gi pare nga ci gis naa la fan yi ngay def rosa bu meuf bi 24 heures bi dama yàgg ci tuñ motax malay ma nga bañ ko def parce que dafa sauf suukar bo woré def ko bonaj bi tangé bo xamé la ciko ni nii ci day ci té da ngay woré ci bir ci bir mu melni ni amin fa basan bi man lima def ci rosa bi fa def man ma def tout pour ça def na tout pour rosa hé hé taxawal mo ko yow lima lay léral nak pour nga xam ko bu baax nga def ko sa bop lor ngeen xewal bu ko mu ko dégg fi mooy loolu ngeen xewal kooku moom boo am ngeen lu ngeen lu ngeen def nag mooy wax feñ boobu ngeen xewal naan caw sa xiir loo xam caw sa xiir boo ko fii da ngay nga loo jox koy dégg fii sama biir caw di caw di caw bu dugg ci biir màkk ci nga war a bàyyi lépp te cawanteeg moom suñu borom dafa lay beneen dernière chose bi nag mooy boobu ngeen xewal di ci léegi gaaroo waarante bu ma jékki-jékki taxaw naa nooy tontoo sonal oyeef boobu noonu bu mu fi am. non dama leen expliqué pour mu clair ni ma ko def ah foo ma répété nga ma dem ma ko répété di nga wax di nga laay wax. dugg nañ ci ramadan yàlla ñu ci dugg ak jàmm génn ci ak jàmm fi taw sa xiir nag xiir gi dina la dal mu leer kon yees